xibaar yi Arsenal mi nga xam ne léegi nii ci match bi nga xam ne doon na ko doxal ak équipe bi la nga xam ne moo nekk Bournemouth mat boobe jeex na tàkk Arsenal nag mu mujj am ndam ñetti bal ci ñaar ci match boo xam ni ah, daanaka tey jii rajo na ndax football nan lu toll ci ah, juróom-ñeent fukki minute ak juróom-ñaar ah, ci la Arsenal dooru dugal bit bi nga xam ne moo koy may ndam mu nekkoon match boo xam ne tacc la defoon ndax demoon na ba ñaara ñaar waaye gone yi lijjanti nan ko ki def loole moo nekk Nelson 97e minute teewul Chelsea tamit moom it am na première ndamam boo xam ne yàgg na lool ñu ànd ak Koulibaly avant kon yeneen information